aw conseil constitutionnel joxe na dogalam démb léegi gis nga xale yi génn nañ rajaxe dëkk bi def nañ lépp yow noo dundee conseil constitutionnel ba mu validé candidature kii di maître Abdoulaye Wade. ah mais ba ma ko dundee kay métti lañ ko dundee parce que dëkk bi dafa toll fii nga xam ne métti na métti gi nga xam ne ku ko waxul da nga wax lu la neex. daal génn di toj ak yooyu daal. ma ci waaw. loolu rafetlu moo ko ndax Abdoulaye Wade du du woon yoon quoi muy prés moom muy présenté waat candidature mais génn tamit non génn di toj di yak mën nañoo baré mais mën nañoo baña yak yépp nak goor ñi jigéen ñi ma ak ndaw nañ mu jàmm rek ndax ñu mëna doxal réew mi. wax dëgg la ku jéxal wa ma wara bay bo mu lé dawal da ngay dem uti sofoor mu lay dawal am lé sofoor nak gaare auto bi nga jël taxi du mo gën dégg mo la fu nak démb Thiès lañ jë commencé baare tali bi sànni suñ oto yi ay xeer pour ñu dugg Dakar sax di diggante dix heures ba trois heures mun ñoo dugg dagaar di matin semier yi jàpp foofu di daq booy sonal ñu bay bëgg a dee booy oto yu bari dañ leen a toj sax mun ñoo fexe ba dugg transport bi moom metti na fi ndool nii ci ñun parce que tali bi moom mboolem lu mënti amit bu ñu baare ñun ñooy sonn état bi du ci yëg dara wala bu ko yëgeet faale wuñu kon ñun loolu metti nañu mom wa Boy yi moo tax kaas tay boy yi li ñuy kaas ñun and nañ parce que fokk ñu def loolu pour ñu am liñ bëgg conseil constitutionnel danel na décision bi que ni apply wat nek na candidat ku melni ni Ndour également jëluñu ko mu nek candidat yow no gisé décision bob ah décision mom wax dëgg la conseil constitutionnel parce que nit ñi xam nañ lu fa nek ki ñi lay yakal segu ñi lay may añ ak reer xam nga do ñako kébi da lay fekk nga lek ba xam naa ne de boobu bànneex boobu de bu ñu la ne defal li doo ko def Ablaye ñëpp xam nañu ko surtout ñun xale yi ñun ñoo war a góorgóorlu ku nekk xam ne te responsable de demain sa pap bu jëlee retraite yaa ko war a ëllëg yaa ko war a remplacer boo ko xamlee nag lii na ñun ñëpp ñoo ko war a mànkoo te dëkk bi mu mun a dox ci kanam Ablaye jeexal na bu yàgg nit ñi xam nañu ko. conseil soo aussi bi mu koy valider xam na ne bu ko valider ba pare dëkk bi dana tas. comme jël na responsabilité valide ko mais ñu andossé les responsabilité parce que yow responsabilité yan la war a doon ndax manifestation yi dafay débordé wala. ah mais débordement am na ba pare parce que y a arrangé wuñu est-ce que loolu jeunes yi waroon nañ génn di manifester war a am na beneen solution bu ñu mënoon utiliser. bon beneen solution de recours amu fi parce que dëkk bi bu tegu woon ci yoon kenn du jëlal sa bopp di réglal sa bopp mais dëkk bi justice ak transparence amul ci suñu réew loolu laa ci. kon yow daal da nga gis ne conseil constitutionnel dañu jalgati yoon. ah mais ce qu'on veut dire nangu naa ne bon teggi nañu yoon ba xëy na ñoom bu ñu fekkee ñoom ñi ngi si dans le droit am aussi ñi nga xam ne nee nañ Abdoulaye Wade dans le droit te ñoom ñëpp droit lañ def te ce qui veut dire que ne bon man je suis entièrement d'accord accord ak ñi riposté parce que moo ne deux mandats les deux mandats sont bouclés man lola laa mën a jàpp comme deux mandats la il a fait deux mandats su ko defee troisième mandat lañ koy tuddee. mënul nekk deux mandats joolaa boobu fa nekk kooku suñu mbokk la mais nit ñi xam nañu joolaa normalement war am kaddu bo demee foo tollee feneen da ngaa war a jël certificat parce que da ngay xool sa deret lu mu meloon sa maam yi boo ko defulee tey nag trahir sa ethnie mo fa nekk sonko moomu dafa dafa trahir joolaa yi non si Youssou Ndour laay njëkkee Youssou Ndour moom mën na koo bàyyi noonu mën sax parce que Youssou Ndour moom xamul affaire na dem ci musique musique dal mo gën muy ñëw ci affaire élection xamul dara parce que jàngul Youssou Ndour amul benn diplôme bu mu mën a firndee ne Youssou Ndour bokk candidat gaay mom dogal mom moom ànd naa mais Ablaye mom moom aussi ànd naa si Ablaye Wade dogalam bi moom baax na trop parce que Ablaye man instant yi gisuma ko tané man man sama bop man joxul ma liggéey dama ma liggéey dé mais Ablaye Wade gisuma ko tané parce que xol na xol ku wara dam remplacer mais amul liñu ñuy lepp ñokay defara rek ci ñun ba yi lay këpp wat xam nga mënoon nañoo seet beneen beneen solution bu du yàq ay affaire yoo xam ne nii. yeneen solution comme nan. yeneen solution. bañ a yàq comme que am na lii am am na pare. mais ñu jàppee ko noonu rek léegi ñun nag duñ demee bay voté ñu xam kan la ñuy voté ko affaire yooyu ci li ma ko jàppee quoi man. waaw ah, xale yi génn nañ ci mbedd yi toj nañ am na ku policier bu ci ñàkk ba kanam ndax loolu. non loolu moom rafetul moom parce que jàmm moom bu ñu amee jàmm Sénégal mu ñaan nañ ñaan jàmm rek parce que jàmm bu ñu ko amee rek ñëpp am jàmm nañ ñaan jaamu di wut jaamu rek parce que yow tay man mi su amul suñu amul suñu suñu ablay bu ñu amul jaamu instant yi man jamu am jaamu man mu mi sama neeg duma am jaamu parce que bu jaamu amul rek duma mëna nelaw parce que man si la bok ci réew mi nit yi jog demb nak di toj ak euh, do normal warna warna wessu fofu buron sax bu doon sama gis-gis warna wessu fofu sax man tay dama ñew fajar man xaaral ma liggéey gaaw ma dem bu commencé man ma ngi ci bi parce que xale la te ëlëk Sénégal la bëgg mu mu ba kon li ñu jéxal war nañu ñeneen au moins bu suba bu suba mu dak li nak mu raw li témer junni yo mais li ma wax deug yalla lu fa nek mom wax deug baxul gis nañ nek parti également dañ def recours peut-être pour ñaan defaat conseil constitutionnel meuna annuler candidat est-ce que yaakar nga la lool dina am yaakar mako iblis mu fa nek du baax police bu ñu ray dem mom baaxul mom parce que lool mom borom bakkan mom nga ray ko non mom jëne ko mom parce que ñom ñoo ñu amé suñu karangé bu dootul ñom ñun tay duñ nelaw duñ lek duñ nan waaw yow daal nga gis lu am démb kon kan mooy responsable. responsable bi noonu si nguur si si citoyen yi la mais du si nguur kii gi ko def parce que du si ñoom ñun si. lu tax nga ne citoyen parce que xoolal loolu rafetul parce que policiers yi ñun lu ñuy wutal ñun suñu jàmm la ñuy wutal ak jàmm réew mi bu ñëwee ba jéem a xeex ak ñoom waa euh, opposition bi di jéem a indi ay problème loolu rafetul dëgg yàlla loolu moo rafetul moom si ñun la moom après moom si ñun la ma la may wax si